su Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad may ma président euh, julli si nga ni nga ko baaxoo defee. dëgg la lu jiitu jumaa ji di noppi. lu jiitu jumaa ji di noppi at mu nekk nga julli si. dëgg la dëgg la man tey sax sa julli si bett na ma ndax ba bëgg dee maa ngi lay dégg ni yoon. waaw dañu wàcc rek ci avion bi ñëw ah julli gi moom xam a xéewal la. bu mat sëkk euh, fu nu mën a toll it def tout pour mën a ñëw fekkee ko di sant yàlla bu baax a baax di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp. di ñaan yàlla weer wi nga xam ne moom la ñu génn lépp lu ñu ci doon jot yàlla defal ñu ko lu ko ëpp. di sant nag bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xam ni que ñu àndal liggéey ngeen rafetal liggéey bu baax a baax a baax lépp lu ci war rek ndax média dafa nekk loo xam ne dafa am importance. dafay wéttali dafay informer te yéen a ngi bu baax a baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax